vice-président de l'association ADIAT. ADIAT qui signifie Anne Destayalat. Donc nous sommes là aujourd'hui réunis

fekk ñu si ñun si li ñuy def muy lan social ñu ànd def te yàlla tax fii ñu si dara soxlaawuñ si dara yaakaaruñ dara si kenn kon ñu ngi siy woo ñëpp parce que lu rafet la daal di dimbali ñi nga xam am ne rawatina weer wi ne muy weeru ko di sant yàlla bu baax lancé benn message bu important ñu jëmale ko si autorité yi dëkk bi yëpp di leen ni vraiment soxla nañ seen aide bu baax parce que dugguñu pour def loo xam ne lu ñàkk fayda la wala dugguñ si loo xam ne lu ñàkk fayda kon ay en tant que jeune ñu ni ñëpp bu amee objectif bi mooy dimbali ñi nga xam ne ñu amuñu kon daga na ñoom ñu ñëw jàppale ñu si incha allah kon nga ñuy lancé autorité yëpp incha allah